di nuyu di ñaanal cheikh mahamadul muntaxa yàlla fi yag lool te serigne sëriñ babacar si masour mu tedd mi yàlla fi yag lool te serif ablay ablaye yalna fi yag lool te sunu bay bi ci lew na ñeseen sunu bay bi ci medina bay yàlla ñu fi yag sunu bay bi ci ndiasan ak sunu bay bi ci canaba yàlla fi yag te serigne cheikh jëmb fall yàlla fi yag te khalifa general kullu fall fi yag di ñaanal sëriñ muniru njëgën ak sunu waa kër maam alpha combaan ak sunu waa kër maam rawaan gom ca paal ak sunu waa kër maam abba sàll ca luga ak sunu waa kër omar fuuti yu taal ñu ngi leen di ñaanal yàlla jàmm di leen ko ñaanal wër di ñaanal di leen ñaanal gudd fan ak wër gu yaram di ñaan ñu yàgg fi lool te wër ndax ñoom ñooy kenn diidi ji di nuyu nag président Macky Sall am na benn am ko defoon ci commentaire ne ne ma del nuyu président Macky Sall ma ne ñi ngi nuyu président Macky Sall di ko ñaanal yeen bi mu yeen yeen bi mu yeen yal na oyof ci koom di nuyu nag soxna su tedd si di soxna Aïda Diallo soxna Aïda Saliou Thiour yàlla nga yàgg fi te wër yàlla nga dund yéene bi nga am ci liggéey Serigne Touba yàlla nga ko def ànd koog sa sago yàlla na ànd ak ngërëmal Serigne Touba di wax asalaamaaleykum mbokk àdduna bépp rawatina waa Sénégal di ñaan suñu néew bi yàlla fekkee ñëpp ngeen nekk si jàmm serigne bass bamba xewal fi ci xewal tv moy nuy aduna bi yépp di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di ñaan yalla ñepp jamm ñi ñi sopp ak ñi ñi sopp yépp yalla ñu am jamm di ñaan yalla ñepp wër euh sama sama gaay sama xarit yi walen gaay ñu wacc ma nak fan yépp dama tawat gaay dal wacc ñu ma fi mini da ko wax <laughs> ndaysan fan yépp bu ngeen gisee gisulen ma dama teddon wallahi ndaysan waaye nag noonu la àdduna moom da ngay wër di feebar rek loolu moom ba ba ñuy dee loolu lañ fi yàlla tege ñi ñaan yàlla ñi tëdd ñëpp yàlla nañ jóg tey nag suñu waxtaan dama ne woon du ma ci wax sax ndax kooku amul fulla amul fayda mais il faut ma leeral nit ñi ndax jaxase bi ñuy jaxase doomu aadama yi ak soxna da Diallo jaxase yooyu laa bëgg a leeral nit ñi dina wax ci ñaari mbir muy ku ñàkk fayda kooku ko nga xam ne bu bu fekkoon du avocat léegi nii moom mi ngi ci kaso bi ndax dóor rek lay def muy maître El Hadj Diouf kenn war koo kenn war ko wax maître El Hadj Diouf ak ki nga xam ne mooy maam jaara mi nekkoon seen petit maanaam ñuréel bi nga xam ne maanaam li ñu bayoon ci seen petit li mu jur ñaar yooyu moom mooy ponk bi bu njëkk bi mooy fan yi dañoo wane euh, maître El Hadj Diouf mu toog ci benn cérémonie sëriñ Béthio xaritam la mu ne ba mu juddoo ba léegi musta gis jigéen bu nekk xalifa wax na dëgg moom nee na mosu koo gis man moom gis naa ko waaye dama la bëgg a xamal Maître El ak ak jaxase bii ngay jaxase doomu aadama yi lii nga teg pour di ko leeral ci sa làmmiñ bu réy boobu soxna Aïda Diallo du xalifa soxna Aïda Diallo nekkul xalifa sëriñ Béthio xëccoowu ko bugg koo doon jéemu koo doon soxna soxna Aida Diallo nekkul xalifa sëriñ Béthio soxna Aida Diallo sëriñ Béthio la nekkul xalifa sëriñ Béthio day day sëriñ Béthio mu sotti la ndax sëriñ Béthio moo summeeku ci soxna Aida Diallo ne ko yaay man maa yow jàpp ci yow moo jàpp ci man dëgg dëgg dëgg bànneex nekku ci bakkan nekku ci lo def maa la ko def lo lo wax maa ko wax lo kon xëccewul ay khalifa xam nga wax na len ko batay gis nga ngëm dafa for ngëm dafa sacré li nga xamne ne ngay gëm mo lay wallu ci bir bammel mo lay wallu kër buñu démé yowul xiyam na nek lu lèr na nek lu lèr ki ñuy gëm ak ki ñuy top na nekk lu leer amul ay xalifa amul may taw amul may chat amul may doomu diw mbokk yi yewu leen ay mbirum xalifa yi diw mooy xalifa diw mooy xalifa am na de am na xalifa yoo xam ne wax dëgg yàlla na seen baay meloon raw nañ sax na seen baay meloon waaye am na xalifa yoo xam ne billaahi ku leen topp safara nga jëm ndax duñ la wax yàlla nee na duñ la wax yonent bi nee na seen bopp rek la leen di woon ak seen poche gis nga nit ñi yeewu leen dafa am loo xam ne gis nga bataay médiatique bii ñuy def nii amul njëriñ def lu la soppe def lu la bëgge def lu la toppe mu nekk lu baax mu ëpp importance mu ëpp importance ba bataille médiatique bi amul solo nga soxna Aïda Diallo ñu koy gëm gëm nañ ko ba pare mbindeef mun ta fexe ñu bokk kenn mun ta fexe ñi nga xamne ne ñoo topp soxna Aida Diallo ñu bàyyi ko dem top keneen kenn mënu ko am nañ ci droit man dama dama dama jaxlé ci Sénégal côté bu nekk côté bu nekk yéen a ngi fay song soxna fu ngeen song wu rek ngeen dem ci benen côté lu mu leen di jëriñ ban lan ngeen ci jëlé aduna bi neexul yagul yeen ñepp ñun ñepp dinañ faatu lan mo fi yeen ni dekk ci bi ñi nga Serigne boole na leen ñi nga xam ne Serigne Béthio boole ne leen ñu ànd di liggéeyal Serigne Touba ngeen ne du ci dal bu ngeen dem côté bii bu ngeen demee fii baaxul ngeen dem fii baaxul mais tey leen te régler te dal mënu leen a fexe fexe fexe fexe ba ñuy topp soxna Aida Diallo ba ko dem topp doom tepp keneen mu leen ci dara côté bu nekk jéem ngeen fa fu ngeen xalaat ne soxna si bu fa génn bu fa fëlee maanaam mu am njëriñ rek ngeen fàtt ko. waaye bunt yi bëri bu ngeen bunt bu ngeen fàtte Serigne Touba ubbi beneen bunt ndax Serigne Béthio dafa liggéeyal Serigne Touba loo xam ne amul kenn ku ko liggéeyal fii Serigne Touba Serigne Béthio li ma liggéeyal Serigne Touba gisaguma ko man bëgg Serigne Touba liggéeyal Serigne Saliou ba sëriñ Saliou ne ko yaay man maa yow maa yow ñaari ñaari nabe ndox lañu da ngay tànk ci bii da ngay tànk ci bii sotti ci bii kon liggéeyu Serigne Saliou bii ngeen bëgg a yàq. mënu leen ci dara wax ba dee rek dem wax ba dee dem seen yoon rek mu leen ci dara kan moo kan moo mës a dégg soxna Aida Diallo man maay xalifa kenn mësu koo dégg du xalifa wax naa leen ko ba tey jëwriñ la ci biir cant gi sëriñ Béthio di dem xool kii laa gën a wóolu kii moom ma gën a liggéeyal kii moom a gën a sopp kii moom a gën a bëgg kii moo gën a am pasteef sëriñ Béthio jël lenge yi jox ko ko lu ngeen ci man wax ba xotteeku wax ba dee mais de la Diouf moom dama noonu sax duma ko tontu ndax boo xoolee saaga yi ñu koy saaga ci internet bi nii saa bu fëlee nga dégg ñu koy saaga mu war a yërëm ndeyam jii ko jur mais chaque jour ñu koy saaga tey tey mu ànd ak Macky Sall suba mu ànd ak Ablaye Wade ginnaaw suba mu ànd ak Idriss Seck àndul a kenn foo xaalis ba ne rek fa la ne avocat ci rajo yi avocat ci télé yi ak xam ne amul bopp amul genn li nga xam ne moom la ñu war a teg ci. yobu tribunal mom ci tribunal mom mo mbedd mi moy radio yi ak euh, télévision yi ak euh, internet bi ak ñak fayda ken xamul lu muy ndrol jëru sa tontu duma su yàgg sax ci mom mais limu leen bëgg xamal daal politique bi ngeen def complot bi lobby yeeg yépp ngir ne da ngeen di bëgg bëgg a soxna Adi Diallo saa leen a noppalu ngir yalla yonti bi xana amu leen yéen yitte leen ya nga yeen ñak fayda kan mo mësa dégg soxna Aida Diallo ne man may khalifa kenn musu ko dégg ñaata jigéen ñoo ne fii jiite daayira yoo xam ne ay góor a nga ci ñaata jigéen ñoo fi nekk jiite nganti daayira yoo xam ne di liggéey seen tubaa yoo xam ne ay ay góor a ci kan moo ko tere waaye jigéen bu amee ful la am fayda bëgg sëriñ tuubaa topp ndigalu jëkkëram di jëf loo xam ne benn góor mënu koo jëf ba pare ñu soxla ñu soxla loolu fu ngeen ko teg tegu leen ko fenn tegu leen ko fenn soof ngeen ñàkk fayda mu leen a bat jàmbur fu nekk ngeen génn fa léegi su ngeen nee soxna Aida Diallo xalifa la ñi amul bopp naan voilà soxna si xalifa déedéet du xalifa dafa am ñu ko sëriñ boy ca booleel gis nga jigéen dégg nga ñu naan la toppal sa ndigalu borom kër toppal sa ndigalu borom kër am na benn xisa boo xam ne benn jigéen ci jamono yonante bi jëkkëram day tukki ne ko bul génn kër gi comme moog yonante bay jëlloo mu ne ko bul génn kër gi jëkkër ji jël saagam dem rek benn rakam ñëw ne ko sama baay dafa feebar sonn na mu jël yonent bi ne ko Seydina Mohamed mu ne mu ne ko sama borom kër bi muy génn addu bi muy dem tukki dana ma bul génn kër gi waaye sama baay sama baay dana ma waaye bi muy bi muy génn kër gi dana ma bul génn kër waaye dañ maa woone ma sama baay dafa feebar mu ne ko toppal sa ndigalu borom kër ñu yónneewaat ne ko sa baay dee na mu jël war yonte bi ne ko seydina muhammad man kat ndaw ñëwaat na neena sama baay deena waye waaye sama jëkkër dane woon bul genn kër gi mu ne ko tapa sa ndigalu borom kër ñu ne ko sul nañ sa baay ñu ngi koy saraxal tay xana nak di nga ñew ci sarax si mu jël war yonte bi ne ko sama baay de dañ koy saraxal waye sama borom kër mon woon bul genn kër gi yonente bi ne ko tapa sa ndigalu borom kër ci guddigi la borom kërëm ñew bi borom kërëm ñewé mu jox ko ndox mu naan jox ko reer nettali ko mbir mi ne ko man kat sama baay dafa feebar ñu wooma ba faatu nañu wooma saraxal nañ ko wooma waaye dama dem ci yonte bi lang ma waxoon ne ma bul génn kër gi moo tax yonente bi ne ma toogal nga topp sa ndigalu borom kër bi yonente bi tëddee bu ñu tëddee guddi bi mu yonente bi bu mu tëddee mu gis waa ji nekk ci ay bànneex maanaam nekk barsàq peexu àjjana bi xewlu àjjana bi di ko fekk mu xëy suba woon daw si ne ko gis nga ni nga topp sa ndigalu borom kër sa baay boobu yëfar la woon safar la doon dem waaye ndigal li nga topp ci sa borom kër moo tax yàlla jéggal ko ay bàkkaaram yow mu jéggale say bàkkaar jéggal borom kër sa borom kër ay bàkkaar bàkkaaram maanaam topp ndigalu borom kër tax na yàlla jéggal ab yéefar tabal ko àjjana dugal ko ci xéewalu àjjana yi waaw léegi sëriñ Béthio di dem dénk soxna Aïda Diallo boo xoolee xew-xew bu ñu bi ñu mujj a def Serigne Béthio di dund nekk ca France soxna Aïda Diallo moo jiitewul lépp ñëpp topp ci ginnaaw xew-xew bi nga xam ne moom la Serigne Béthio mujj def ci kaw suuf soxna Aïda Diallo moo jiite lépp dana yéen ñëpp topp leen ci ginnaaw soxna Aïda Diallo wax ko fu ne waaw ñi nga xam ne ñu ngi topp topp ñu Serigne euh, topp ñu soxna Aïda Diallo am nañ si droit doyu leen doyu leen topp lu ko. waaye ñi nga xam ne nag soxna Aida Diallo ñi ngi topp soxna Aida Diallo am nañ ci droit ndax soxna Aida moo leen doy bu dee li ñuy def baaxul bàyyi leen bu demee sax bu demee euh, àllaaxira ñu dem safara ñoom jaral na leen ko bu dee yéen li ngeen def moo baax bu ngeen demee sa àjjana ngeen jëm moom ñi ànd ak moom safara lañ jëm bàyyi leen leen bàyyi leen leen ku nekk dem mais ku nekk na yem ci sa place ba ba coow li amee ba léegi ñaari at kenn musta dégg soxna Aida Diallo mu tontu wala mu wax kenn dara. mbokk yi boo toppee nit topp nit ñaari at xa façon xas bu ne nga xas ko ko maanaam day day day xërëm nit ñi dafay jël café di ko di ko jox nit ñi ñuy naan nit ñi ànduna ak seen sago ñoom bëgg nañu baax la waaye yéen ñi nga xam ne naan leen café naan leen meew yéen ngi ànd ak seen conscience tranquille dem topp fu fu leen neex waaw léegi nag pour la ngeen kii day topp kii par force waaye bàyyi leen seen ñàkk fayda yi waay mais leen ñu jàmm soof ngeen trop man ku fi génn wax ma génn wax yéen a soof te ñàkk fayda mu leen a bakk yi ah yéen li nga nekk baax na moom li mu nekk baaxul nañ dem ci yàlla bu demee ci yàlla dina leer bu demee ci yàlla rek léppay leer te dem ci yàlla moom gis nga malaakal moom fi mu supprimer seen bakkan yi ngeen di fooy baleen ko ay xalifa général ay xalifa xalifa kii ak xalifa nangam xalifa nangam yooyu xoolal nit ñi yeewu leen nit mën naa baax mun naa nekk wàlliw mun naa nekk nit ku baax guy dina jur xetax jur doom joo xam ne bandi la wuy la ku fi dof dof lu nag yaa xam koo mën a doon ci senegal gii maanaam nga yaakaar nit mu faatu nga dem ngay dem ca doom ja nanga xool la nekkoon ca baay ba bu dee ma nga ca doom ja topp ko bu dee néew foofu wutali keneen ajana ñii di wax yëpp kenn moomu ko ajana yàllaa ko moom te dana jàmmu leen ma ajana yàllaa ko moom de ay ay yii nii yóbbul kenn ajana ay diwooy sama baay diwooy sama baay diw bu nekkee sa baay diw bu nekkee sa baay tey sa te maanaam li nekkoon sa baay ba tax ñu koy topp nekkul ci yow boo ngeen ko toppee ñàkk ngeen fayda ubbi leen seen bopp yi àjjana kenn moomu ko yàlla moo ko moom kon nag kaay gëm ma far force amul kaay gëm ma far force fu mu am kay topp ma far force demal topp nit kii demal topp kii far force te gisul lu ko doy ci moom loolu fu ngeen ko gis waaye billaahi yéen yéen man senegal gi jaaxal na ma loolu laa ci doon wax ci. ku ñàkk fayda googu maître El Hadji mu ñàkk fayda moom nga xam ne avocat télé ak rajo yi la kenn xamul lu muy nuróol lu sa yoon nga naan diw na dem rangé wu ci diw yaa koy wax yaa koy wax li muy def ah nga naan diw diw xalifa diw mosoo gis wax nga dëgg mosoo gis xalifa mosoo gis xalifa bu jigéen mais moom du xalifa ndokk yàlla ba mu dul xalifa ndokk yàlla ba mu dul xalifa waaye xalifa yi ma gis de yu ci baree baree baree baree bo tegon jaamu yalla soxna ene jallo nga tek sen jaamu yalla jaamu yalla soxna ene jallo day da leen di war moo leen ëpp doole tax li gën a baax ci doomu aadama mom la dëkke muy joxe ñam mom la dëkke te boolewul ci xajj ak sen ta foko fek mi ngi jang xasida mi ngi jang alquran tontuul ñukoy wax lu lu bon lu nekk teg li ñi wax soxna ene jallo kuñ ko waxon sa nday nga tontu kuñ ko waxon sa nday nga ci fi xex liñ koy wax. waaye mu nekk garmi yore noppi garmi du déglu lu bon du seetaan lu bon téye gémmiñam gii du ci wax dara loo xam ne lu ñaaw la lépp saa boo ko gisee rek liggéey Serigne Touba la mi ngi ci mi mi ngi ci nekk mi ngi nekk ci liggéey Serigne Touba yéen ngeen ne fi yor seen làmmañ yi di ngel ngeli da ngeen di wax ba seen gémmiñ yi toj mun leen a fexe fexe fexe fexe ba soxna Aida Diallo ngeen toppaloo ko ku mu gëmul ngeen toppaloo ko dugal ko fu mu neexu ñi topp soxna Aida Diallo mun leen fexe fexe ba mu chaque jour yéen a ngi wax dañuy gën a gëm mbooloo ma mbooloo ñu ngi gën a yokku jëf yi mi ngi gën a yokk nee naa la léegi su laajoon un milliard léegi balaa jant bee suñu jox ko yéen nag bu ngeen fi laajoon waxuma un milliard quatre millions rek bu ngeen ko laajoon cinq cent mille ngeen am yéen a soof mais la ñu jàmm bi ci ñëw ci seen petit yàgg naa cee wax. seen petit li mu jur càgga ji mu jur xoolal xale bu jigéen bii ñu koy wax maam jaara turu wu woowu maam jaara turu sell woowu bàyyam jur ko tudde ko soxna maam jaara jàngal ko ba moom fukki ak juróom fukki at ak ñeent benn télé ne ko ciix benn group ne ko ciix ne génne ko seen petit jàngal ko ay way mu dugg ca loolo ndax seen petit galle après day def xale yi star dañuy def seen boppi star dugg ca far yàq ko xoolal turu réew yi ñi la jox sa baay nekk julit sa yaay nekk julit nga dëkk ci réew mu mel ni sénégal dem bitim réew defe jël carte sénégal bi xotti ko maanaam sol ab silip ak si jangos jël sa ne ko dungu ci internet bi àdduna bépp ay million yu millions ay milliards nit di la seetaan lan moo ko jur seen petit gàlle est-ce que ñuy jiite seen petit gàlle gis nga seeni doom woy ci te moom ñoom am na ay bàyyi woykat lañu am xam nga Youssou Ndour mooy woykat bi gën a mag fii senegal pour lan doomu Youssou Ndour dugaluñ ko seen petit gàlle pour lan doomu Bouba Ndour dugaluñ ko seen petit gàlle Ngoné Ndour pour lan doomam dugaluñ ko seen petit gàlle do ci gis doomi kenn jël doomu nit ñi nag jaay leen seytaani ba xale yi di ëmb dégg nga xale yi jamono yi paas dégg nga ñaan naan diw ëmbal la xale yi def seen bopp ay star te ci njàng lañu toll yàq seen doom yi xoolal li mu jur tey toll ni soxna jaara def li nga xam ne kenn mënu la koo nettali daanaka ne dungu sol yaramu neen fotaw ay millions et millions nit di ko seetaan lan la lan mooy cause bi seen petit gàlle pour la dugal leen seen doom yi bu dee baax la bu dee lu baax la pour la leen seen doom yi am ngeen yow bu wëndu sax am nga doom bu doon jéem a woyantu fi ndeyam woykat la pour lan dugalu leen ko seen petit gàlle xale yi seen petit gàlle yëpp yàq nañu ñëpp boo leen gisee nekkatuñu ay gone billaahi seen baay seen baay ak seen yaay amel nañu amel na leen àq ndax waajur bu nekk sàmm la dina la laaj noo doon sàmme ci gàttal daal seen petit daal li mu jur ay caga ak i wuyu ak i bandi ndax xale bii xam nga ne bandi la xale bi wuyu la xale bi caga la xoolal li mu def li mu def ni dungu sol yaramu neen ku ko ci sa doom defoon nga xar suuf si dugg ci te lan moo tax ñu def ko lan moo tax mu def ko maanaam seen petit rek fa la juddoo ngeen top daara yi daara yi daara yi far ngeen mës a gisee ab daara mu formé benn nit mu def taatu neen taxaw ne dungu di foto far ngeen ko mës a gis yàq doomu jaamur yi même ñi ci kër yi xale yi ci kër yi fi mu ne jàngal leen na defe na ay woy defe na ay woy mooy tax nit ñi am maanaam mooy njariñ mooy tax nit ki tedd xoolal xale yi seen petit gàlle bu nu génnee télé ni ñuy def seen bopp dañuy defe ne boo xaroon suuf si maanaam boo xaroon asamaan si ñu téye ko ndax def nañ seen bopp ay waykat yu mag te du ñuy woykat ndax dañuy toppandoo seen mag saay-saay yi la ñuy toppandoo seen mag saay yi maanaam pour seen liñ fi jiw bañ a bañ a bañ a yàqu maanaam ay jiw lalu ay jiwu seytaane lañu soo xoolee ñi fi nekkoon boo xoolee ay Baaba Maal ak ay Omar Pène ay kalaas googu dañooy dem jiw fi maanaam jiw fi benn jiw ay Aline Mbendeer ak ay xoma may ay nangam nangam ñooñu tamit jur ñoom Wally Seck ak ñoom Pape Diouf ak ay Siri Diop ak ay ñi bëri bëri goog ay ñooñu léegi nag ñii ñooy jiw seen petit galé kon mbon du fi mom musique moom du fi jóg mbon du fi jóg ndax jiw bi dafay nekk te jiw bi dafa for dafa am engrais bu baax a baax baax te dafa am xaalis jiw bi du fi jóg mbon gi du fi ndax ñi nga ne ño wara xex ba mbon bi jog fi ño nan alaaji yusuf ndour te musul dem jidda ño nan alaaji yusuf ndour te musul dem jidda ñooy gërem yusuf ndour ci manam ci mbaxam ci liggéeyam lan moy mbaxam lan moy liggéeyam kon diiw bi affaire bi dafa jóge dañuy dund ba dé rek yalla ci dem mëna nañoo yërm tabal ñu àjjana ci mbugalam mu mbugal ñu tabal ñu safara yalla ñu tombeek ngërëmal yërmande yalla waaye defaluñu yàlla lu mu ñu yóbbu àjjana tëgg ak fecc bëre fubal fu luwul fan la mën a yóbbu nit tëgg fecc réew moo xam ne góor ñi ñooy fecckat yi léegi jigéen ñi dañuy dem sabar du ñu mën a fecc ndax góor ñi ñoo ñoo jël maanaam la ñu war a fecc góor yee ñoo fecc ko te ñoo ñooy extar boo gisee ñu sinkiliku te ñoom ñëpp ay góor jigéen lañu koo ci gis muy biiñ di waccaxu koo ci gis muy wax waxi jigéen yoo xam ne xam nga kenn xamul nu mu demee xool leen parole yi ñuy jël di ko sànni ci télé bi ci télé yi xoolal suñu doom yi ñu leen di toppee lu tax yàlla ñu yàlla yërëm waaye daal nañ xam ne yàlla daal mi ngeeg mbugalam te waat na ne dinaa duy safara ba mu fees booy topp nit na nga topp nit koo wóolu yàlla la dénkaane foo wóolu kenn du fekk nag ab sébb nga ciy jiw bu boobaa sa jiw dina lakk ba xëm te yaa koy tey yaa koy wéetoo Nol mo doon waxtaan bi serigne mbokk sen mbokk serigne Bass Bamba xewal mo ñewal fi ci xewal TV di dal defal waxtaan bobu ci soxna su tedd si di soxna el Diallo ak euh, say say yi nga xamne ñoy defar ay xalé yi pour ñu yaqku ba gis nga jiw bi li ñi jiwon ci sen petit gàlle gis nga li mu commencé genn xalé ya ngi ëmb gis nga nek fa lay def ta yaramu neen ne dungu ci internet bi man mam jaara ji rek mo meuna xari mam jaara ji kese kese kese kese moo xari ki kat xamul lu mu doon kon loolu moo doon waxtaan bi allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi a sallam tasliman ngeen wax gars yi ñu bàyyi ma nag gars yi dañ may safa safa safa saf a jóg ñeenti fan yoo xam ne jóguma sama lal <laughs> waaye bul nonkee rek ma làqat yi <laughs> maa yéen ba faw yéen maa ngi yéen parce que dem ba dee sama vidéo yi koy seetaan mu leen duma billaahi ba faaw wala missionnaire la dañ ma yónni dañ maa yónni maa yéen ba faw damay dem ba dee ngeen teg sama vidéo ndax dootul daj mu leen duma góom yi gën góomu xol yi may duggal sama wee di leen ko wokk muy naaj te duggal ci man dara liggéey leen suul leen ay xërëm def leen lu leen neex Serigne Bass Bamba xéwal Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasoul bi lay ragal du jam guy jërë ngeen jëf